ñu leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñuy suivre bi di xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. tey dañu ñëw ci la décision ndogal bi tukkee ci cour suprême démb gannaaw baytaa bu senegal defee recours ne ànduñ ci jugement bi si Faye defoon ci Ziguinchor maanaam ñu réintégré waat Ousmane Sonko ci list électorale yi bu noppi jébbal ko lii day fiche de parrainage am démb premier président de la cour suprême muy Siré Ali Ba génnee ndogal daal di neenal àtte bi juge Sabassy Faye àtte woon waaye le pire mu ne dañ koy àtte waat ci tribunal bu Dakar loolee kañ ak ci yan anam kenn xamagul te liñ ci jublu dañ ci revenir ci biir vidéo bi ak fii ñu tollu lan mooy doon taxawaay bi mbir mi nag en tout cas pour ñi yàgg topp décision ak comportement wu yenn ci ay magistrat ci événement yi mujjee xew senegal acte bii Siré Ali Ba posé amaana mën na leen bañ a bett ndax yàgg naa doon un faiseur de sale boulot nit koo xam ne alalu àdduna ay privilégié carrière jaral na ko muy dunguru nguur teg si di ko defee ci anam yi mu gën a ñaawee juste pour taxaw tuuti ci jëmm ji nangoo doon démb kenn ci personnalité yi gën a ci histoire politico judiciaire bu senegal ndax lii mu def taarix daf koy retenir donc pour génération future yi ñëwaat di gëstuwaat passé wu Sénégal ñu xam ne lii Siré Ba def démb du tey la ko tàmbali yàgg naa doon un lâche te warul bett kenn juróom-ñetti weer ci ginnaaw. biko ko Sall di door tek ci bop cour suprême ñun ci lañ defone vidéo tuddee won ko ñent magistrat yi Sall yi 2024 ngir artu ci jëm ji limu mu capable ak limu sañ pour bànneexu bakanam kan la Macky Sall tànn tek ko ci bop cour suprême cour suprême buñ ko don tek mën ni moy le sommet njombaxtalu mbolim atekay yi fa gëna kawé kawe fa kuñ nan Siré Ali kan mooy Siré Ali Ba pour ñuy suivre actualité politique bu Sénégal rawatina ci événement yi fi xewoon lu yàggul dara en 2022 ci élection législative yi jogante tànnum député yi turam fa sonnoon lool ci après vote gannaaw ba askan wi tànnee ba dara desul lu dul génne ay résultat yéen ñëpp yéen a gisandoo woon fraude yi ñi nemmeeku woon ci zone yi ci mel ni Podor Kanel Ranérou ak maatam ñun ñi defoon na ci vidéo spéciale benn ci jëlee ay doomi aadama Mauritanie wutal leen ay kayitu senegal di leen voteloo ci zone yi ñu leen limal pare delloowaat leen saa yu élection amee ñaar ci créer ay bureau de vote fictif bureau yoo xam ne kenn du ko teg bët bu ñu tollee daal ci déposer résultats yi la am ñuy créer seeni PV bind seeni chiffre yóbbu ko ca commission bi war a compter yi càcc gi nag ci élection législative yi di Déthié Fall bu Yewwi Askan Wi da cee amoon ay preuve yu leer naññi ba dem ca commission de recensement des votes kuréel bi wàññi xob yi ngir ñu annuler neenal bureau de vote fictif yooyu ñu créé Matam Podor Kanel ak Ranérou ki jiite woon jamono yooyu commission bi ceetu loolee muy Siré Ali Bam ngeen di seen jour bi di Déthié Fall waroon de recours pour ñu annuler mboolem voix yi Benno Bokk Yaakaar am ci yenn biro yi le Siré Ali Ba gaawantu woo presse bi yépp ngir joxe résultat yi alors que résultat yi muy joxe baaxul ndax daf ci am yu faux mu xañ ñoom Déthié Fall déposer recours pour contester benn ci ca yi gën a doy waar ñu amal ci élection législative yi passé donc Siré Ali Ba magistrat la boo xam ne comploteur la complice la dafay dugal loxoom ca njuuj njaaj politique gannaaw nag sale boulot boobu mu defoon ci élection législative yu ba tax benn Bokk Yaakaar am 82 députés ci lu tegul fenn lënd bi passé la ko Macky Sall sargal te ku ci bopp cour suprême bërëbu àttekaay bi gën a kawe pour muy wéy di exécuter les sales boulots comme ni mu tàmm di ko defee li am mooy mboolem bërëbu attekaay yi nga xamni ni képp ku ñu war a mba mbaa la mëno fa ñaka jaar fa la Macky Sall teg ay vuyu ak ay bandi magistrat Parke bu Dakar mu teg fa ku ñaan Abdou Karim Diop en tant que procureur nga dem tribunal foofee tam ci yenn dossier yi surtout ñeel walum politique Macky Sall moy tànn ay bu né dañ lay daan par force dañ la condamné du ci ma dara nga jugee Fofu, def li nane appel manam nga ni ando ci décision bi yon djel lolé ñi ngi koy réglé cour d'appel bo démé fofu itam le duo Amady Diouf ak Ibrahim Bakhoum nga fay fekk ñaari délinquant yi nga xamni seen carrière yëpp boo ay scandale la nga xép cour d'appel ne ko na dem fa raay ba téné muy cour suprême bànqaas bi gëna kawé ci walu yoon foofee yaa ngi fay fekk kii di Siré Ali Ba sàcckatu élection bi tax waa Benno Bokk Yaakaar am 82 députés ci élection législative yu 2022. vidéo bi ñu ngi ko defoon le 23 février 2023 maanaam Macky Sall lii mu nekk di déroulé ci complicité wu yenn ci ay magistrats corrompus lépp la planifié woon ay weer ci ginnaaw institution bu ne mu placé fay élément am ngir sàkkal pexe benn jëmm muy Ousmane Sonko. ba taxna ba mu léré suñu bop ni ki di sir Ali Ba mo na a mujjee yëf yi ñun ñu gëmoni la réponse mbéd mi la waron doon té riposte bi du won sax xaar ba mu guiné décision comme ni ko ñu bari xalaté won mais ta cour suprême di àddu ñom ñu sentir menace bu am doolé ba bu ñu naron def safan xalaat peuple bi taxaw tém fess ci mbéd yi malheureusement peuple bi daf néwon tek di len déglu bàyyi leen ñu tëral seeni plan xam décision bi ñu war a jël tënk lépp préparé woon nag benn campagne d'intoxication boo xam ne ni muy demee mooy toog ba benn heure na cour suprême dëgg na décision bi juge Sabassy Faye jëloon maanaam ñu delloo Ousmane Sonko ci liste électorale yi ba noppi permettre ko mu démarrer campagne de parrainage am parce que xam nañ xër bi patriote yi xër ci Ousmane Sonko cofeel gi ñuy demee ci moom ba bépp information bu ko favorable buñ ko déggee dañuy gaaw partagé ko mu wër fépp mais ndeke dañu créé woon benn campagne de fake news et de diversion comme niñ ko amelee woon jour bi ñuy yëkkati barricade yi ñu defoon buntu kër Ousmane Sonko gëmloo woon patriote yi ne am na ñuy def médiation dox tànki jàmm diggante Ousmane Sonko ak Macky Sall ngir ay élection yu dal ñëpp mën a bokk fekk boobu ñoo ngi waajal benn opération boo xam ne dafay bett militant ak sympathisant yi jàpp Ousmane Sonko ci moment yu ko kenn xaarutoon benn groupe de résistance parewul woon ngir xeex ku ne yaa ngi woon ci sa yitte bopp amul plan ngir jàmmarloo ni stratégie parce que dañoo surprendre ñëpp finalement lépp na selaw même coup bi la ñu réussir démb ci espace su 30 minutes juge bi nee na Ousmane Sonko dafa war a bokk ñëpp tàmbali jubilé ngir wone seen mbégte ñu leen di comprendre ndax cofeel ak yaakaar dafa rëy. ñu wëlbatiku dóor leen benn douche froide boo xam ne dafay raay seen yaram nagam loo leen ba ku ne fa nga toogoon mënatoo fa sax yëngu. léegi nag ba tey bu ñu ñëwee ci décision bi Siré Ali ba jël muy neenal àtte bi juge Sabassy Faye àtte woon te Ziguinchor jël dossier bi jébbal ko tribunal bu Dakar ngir ñu jugé waat ko motivation bi soxlawul sax xel mu rëy ngir comprendre li ñu bëgg. c'est parce que le tribunal de Dakar Macky Sall am na possibilité tànn juge ko favorable attekat yu ñeme yàlla yoo xam ne daf leen naan bu leen jox Ousmane Sonko dëgg ñooñee daal di koy appliquer comme ni ko président bëggee muy benn ñaareel bi mooy Macky Sall ba tey dafa nekk ci dans sa logique dilatoire manam di wër-wërloo ak le dossier Ousmane Sonko campagne de parrainage bi di dem muy gagner du temps ba bés buñ naan tey la ñu déposer candidature yi fekk Pastef tàmbaleegul sax collecte lek tay am parce que digënté bi tribunal bu Dakar wara taxaw ci dossier bi di renvoyer ak renvoyer wat ba jour mi muy ndogalam ñu jógee foofu kenn ci ñaari camps yi defaat recours ñu wara a ba ci cour suprême mu statuer wat lolu mën fekk sax campagne présidentielle bi tambali li moy objectif Macky Sall alors que li yoon wax. mooy dès lors que si Faye joxe ndogalam ci saa si la ñu waroon jébbal mandataire Ousmane Sonko ay fiche de parrainage am en attendant état moom di def ay recours mais comme ni ngeen ko gisee forfaiture la ñu def ci complicité wu Tanor Thiendella Fall Ismaïla Madior Fall Aïssata Tall Sall ak kii di Siré Ali Ba situation bii nag réponse bi moo newoon laata sax cour suprême di àddu mu am une forte bi tax ñoom ñoo xam ne lii ngeen di waaj askan wi du ko nangu daañu jàmmaarlu ko yéen te loolu ci début semaine bi yëpp la waroon mais malheureusement parce que yenn saa yi da ngay nangu la réalité des faits am na lu bari lu manqué ci les troupes muy meneur yi daan jiite opération yi moo tax ci suñu dernière vidéo ñu daan insister ci baatu remobilisation dajalewaat les cellules créé waat ay groupe de résistance ci quartier yi parce que en emprisonnement yeeg ñi gàddaay seeni kër parce que dañ leen bëggoon jàpp ak ñi jël gaaleek yoonu Nicaragua bi toll cay junniy junniy ndaw loolee fu mu wàññeeku moom impact bu rëy ci combat mais comme niñ ko yàgg waxee ci les moments de doute jiixi jaxa yenn saa sa yaram dee ngay posé wu des questions ci ndax jar na kaam dit foofee la ñuy ràññet la ñi gëm dëgg ak ñi ma réerandoo bi yóbbaale woon. en tout cas ñun ñii di wax ak yéen saa yu ñu demee ba nar a sikki sàkk suñu xel dem ci waa nguur gi ak groupe mafia yi téye Sénégal en otage seen yéene bi gën a rëy mooy képp ku jàppoon daal di xaddi képp ku engagé woon découragé bàyyi leen ak réew mi di leen seetaan su ko defee ñoom ñuy woy di gundaandaat ak des di yàq Sénégal suñu xalaatee ba tey ni Ousmane Sonko mi ngi prison te yéeneem ci réew mi moo ko yóbbee loolee lépp. te moonte nekkoon na ci ay situation yu bax yu ko permettre won muy lek té ne mut maître njabotam ci ay condition yu mucc ayib yonam du nekk ci jafé jafé sénégalais yi bu suñu xel démé ci les prisonniers politiques ñu tollu ci digënté dund ak dé ñeneen xamuñ kañ lañu ñu am ñu gaday yalla xam na ni duñu yaafus c'est parce que duñu lank ne duñu soumettre duñu len japp ci luñu deful am ñu xamni faatu nañ ci digënté bi té li tax ñu jël seen bakkan mooy dañoo taxawoo ne duñu nangu nooteel ak jaay doole wuñu yenn ci ay immigré yi nga xam ne Macky Sall dafa jël seeni tur jox ko sécurité bi géré aéroport Blaise Diagne ne leen saa ñu dëggee seen tànk Sénégal nañu leen jàpp ñu toll ci ay junni immigré te ñooñu lenn képp mooy tax ñu mën a dellu siwaat Sénégal gis seen njaboot ak seen i am di jàmm muy nguuru Macky Sall jógee fi ñun lii mooy suñu motivation ba tax duñu bàyyi te ci loolu la ñuy woo képp ku engagé woon pour la bonne cause képp ku woote woon ni dëgg ngay xeex peu importe situation bi ni muy demee kon nañu takkuwaat nañu gën a taxaw nañu wane ni tey lu ñu gën a gëm ni Macky Sall dafay jugee ak waa nguuram kenn ñu tànnal lépp lu mu laaj ci ay moyens ci ay stratégie ay pexey politique nañ ci dem ba mu mat sëkk tànk ak tànk mbagg ak mbagg booloo àndandoo pour mën a atteindre suñu objectif kon taxaw seetlu bi tey loolu ñu leen gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa jëf